mooy euh, mooy coow li mhm. ndax Ousmane Sonko dafa war a dem assemblée nationale euh, waaw wala déet député yi nga xamante ni ñoom ñooy euh, waa Yewwi Askan Wi ñu bokk ci Ousmane Sonko nee nañu moom warul dem assemblée nationale ndaxte réglement bi dañu ko dañu ko soppi réglement bi nekkul règlement intérieur bu baax loolu dinañ ci ñëwaat mais balaa loolu mhm. dañuy dem xool benn papier bu nga xamante ne ci Ousmane Sonko lan moo tax deful déclaration politique générale am na ñaari aspect am na aspect politique wante aussi am na aspect boo xamante ni ci wàllu droit loolu la tënku. Mhm. Euh, ñu dem xool loolu après ñëwaat. daanaka léeg mu mat ñetti weer boobu ba léegi bu ñu tabee Ousmane Sonko premier ministre amagul benn demande ngir def déclaration politique général déclaration politique général boo xamante ni premier ministre yàgg na ko def laaj bi nag moom mooy lan moo tax léeg ñu dugg ci ñetti weer a Ousmane Sonko waxagul wala defagul li nga xamante ni moo di li mu fa yéene def jàkkaarloog député yi explication yi nag ñaar la benn bi droit lal ko beneen bi di politique. bu njëkk bi moom moo di article 98 ci loi wu 2002 tënk règlement intérieur assemblée nationale lii la wax déclaration politique générale premier ministre war ko def mu ngi dugg ci ñetti weer bu ñu tegee gouvernement assemblée nationale ñu war ko informer ci juróom-ñetti fànn wante loolu am nay jafe-jafe ndax taatum 2019 dindi gi fi dindi woon poste premier ministre bi ñu koy delloowaat disposition boobu nekk ci règlement intérieur bi kenn dugalu ko woon loolu ñu yokk ci ni ni mooy saisir yu président la république wala sax premier ministre Ousmane Sonko article 85 tënk ko te saa yu ko neexee lay doon. beneen explication bi lalu ci wàllu politique. assemblée nationale jamono ji nekk ci ku gi ñoo fa ëpp beneen la ndax Ousmane Sonko dafa bëgg am temps bàyyi ba ñu di sudur assemblée nationale bu septembre 2024 weesoo mu mën a majorité bu koy liggéeyal député opposition bi lii la wax ñetti weer yi moom kenn mënatu ko respecté gisuma tamit lu tax ñu koy respecté su fekkee premier ministre deful dara ñun dañuy déposer recours fële ci conseil constitutionnel Ousmane Sonko war a janoog député yi janoog tamit coow yi nga xamante ni moo ko wër 30 juin bu weesoo dañuy dugg ci beneen session ci biir assemblée nationale beneen session bu nga xamante ni day ubbi yeneen bunt lu ci mel ni motion de censure te bu boobaa gouvernement bi mën na daanu voilà muy noonu ci euh, papier bu nga xamante ne def euh, lan moo tax Ousmane Sonko demul def déclaration politique générale am na ay calcul politique euh, derrière. Mhm. wante barki dem ba ñi nga xamante ne ñun ñu député Yewwi Askan bi def nañ benn conférence de presse. wax ne Ousmane Sonko mënul def déclaration de. déclaration de politique générale mhm. clairement parce que mhm. lu tax mooy réglement intérieur bi boo nekkul règlement intérieur boo xamante ne baaxul ñu déglu leen. règlement intérieur bi dafa faux. et pourquoi ñu jàpp ne règlement intérieur bu fóol et dañ ko falsifié maanaam dañ si dëxëñ loo xam ne jaarul fa mu war a jaar pour dugg si li nga xam ne mooy règlement intérieur bi te ñun député ñun dañuy proposé ay loi ñun député dañuy voter loi ñun député dañuy saytu sax loi yooyu ndax ñu ngi ko teg ci yoon ak gouvernement bi ni muy doxalee kon jaadu na bu ñu indilee loo xam ne teguwul ci yoon ñu ñoo war a njëkk taxaw ni lii mënuñu cee liggéey parce que nous devons être un exemple. disent que oui bon euh, comme ça. oui le premier ministre naan waaw nii lañ ko yàgg a defee premier ministre Amadou Ba nii la ko defee waaw ndax dañoo war a wëy di salfaañe li nga xam ni mooy yoon di salfaañe règlement intérieur bu assemblée nationale déedéet. Est-ce qu'on continuer dans la violation du règlement intérieur et de la Constitution Non. voilà mu ngi noonu moom moo di euh, euh, mu nekkoon Aïcha nekk député bu euh, nekk Yewwi Askan Wi ak ki nga xamante ne moo ne Mamadou Ayib Daffé ba mooy nouveau groupe nouveau président groupe parlementaire bi mooy coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw bi nga xamante ne mhm. Birame Souleye nommé nañ ko ministre ci ci ci gouvernement bi mhm. voilà muy noonu euh, faut retenir rek que euh, Ousmane Sonko le 5 juillet. bii nii ñu mmh, mmh. ñëw euh, semaine prochaine ci lay def 3 mois. Euh, trois mois yi nag soo xoolee fi nga xamante ne moom moo di euh, euh, moom moo di li nga xamante ne moom moo di règlement intérieur yi nekkatul ci biir nekkatul ci biir règlement intérieur bi mooy trois mois yi nga xamante ne si règlement intérieur bu 2002 la nekkoon. Mhm. mooy de trois mois. Mhm. dañu waxoon ne ki nga xamante ne moo di premier ministre suñu ko tabee day def trois mois mu def déclaration politique générale loolu moom moo nekkoon si règlement intérieur bu nekk 2000 2002 ñu modifier ko. Mhm. Euh, des années plus tard 2019 euh, ñu wax ne rek dañu ñu fàttali dañu supprimer li nga xam moo di poste premier ministre. ak ay prérogatives ay attributs am ak yu mu àndal yëpp maanaam interférence lu lu lu lu firndeel interférence entre euh, entre opposi entre exécutif ak le législatif maanaam déclaration politique générale comment dire. Euh, question de confiance ak tamit euh, motion de censure wante soo xoolee mhm. règlement intérieur bu 2019 bi député ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waaye askan wi lu ñu wax boo Euh, mënuñu wax ne wax nañu wax nañu dëgg yëpp parce que euh, motion de censure bi mu ngi ba léegi ci fi nga xamante ni moom mooy réglement intérieur bi donc ci loolu lañ sukkandiku sax ci 2022 décembre 2022 bu ñuy def motion de censure contre le gouvernement Amadou Ba pour mhm. jéemoon ko pour pour jéemoon ko daaneel mhm. voilà mbir mi noonu la tëggee Ousmane Sonko ndax dina def ndax dafa pareegul loolu moo tax déclaré ndax buggul loolu moo tax buggul dem wala ndax réglement intérieur bi moo baaxul euh, loolu pour man taxawul un peu parce que boo invoqué la constitution mhm. hmm, bi euh, article cinquante cinq moom mooy wax ci constitution euh, déclaration politique générale mhm. constitution bi dafa wax ne premier ministre dafa war a dem fi nga xamante ni moom moo de assemblée nationale def déclaration politique générale soo xoolee suñu nomenclature mhm. euh, juridique constitution bi moom mooy charte mère moom mooy jiitu xam nga ay loi ay constitution ay règlement dañ koy classifier constitution moom moo jiitu moo ëpp doole bu fekkee règlement intérieur wax ko tamit constitution loolu la wax donc da nga war a tënku ci lu nga xamante ne moom la constitution wax voilà nga dem def déclaration politique générale wante euh, war na ko def déclaration politique générale mais mbir mi yombewul noonu parce que biir assemblée nationale ñoom ils sont minoritaires par rapport ak euh, coalition Benno Bokk Yaakaar nga xamante ne ñoom ñooy yor presque daanaka député yu ci ëpp donc est-ce que ay calcul politique mhm. est balaa may dugg ci sama série de questions yu ma préparé est-ce que da am beneen euh, extrait boo war jàllale. non c'est bon c'est bon pourquoi cette déclaration de politique générale est tant parce que gis nañ l'actualité est vraiment fournie euh, vraiment marquée par cette attente là. Euh, bon pour jox li mu nekk Ousmane la. non non je non en fait euh, bon jàngat bi nga xamante ni moom la si njëkk def moom mooy euh, c'était une occasion. Mhm. que député yi wane woo député opposition yi. député yi wane wu ak opposition bi sax de façon générale parce que boo xoolee depuis bu ñu installé ñu nga xamante ne ñoom ñooy gouvernement ba léegi bon dégg l' opposition érase peu les murs quoi ci lu bëre mhm. ba sax Ousmane Sonko si déclaration mu defoon grand théâtre doon leen raillé un peu naan il a pas d' opposition donc occasion la pain pain béni la que ñu génn ñu génn ñu génn ñu génn groupé euh, que soit tiré sur député tiré sur Ousmane Sonko parce que mhm. aussi occasion la pour opposition voilà mu mu mhm. mu exister mhm. euh, beneen bi euh, moom mooy lan moo tax affaire bi jur coow parce que traditionnellement Sénégal tous les premiers ministres je dis tous les premiers ministres du Sénégal ont toujours fait la déclaration politique générale sans exception sans exception tous les premiers ministres mën nañ discuter ci durée bi ñu ko def ndax dafa durée bu gàtt la ndax respecté nañ délai mais tous les premiers ministres l'ont fait mm. donc pourquoi premier ministre Ousmane Sonko ñu ne du def déclaration politique générale loolu moo tax mu ñaari mbir yooyu daal mën nañu mën moo tax mu jur coow les députés de Yewwi Askan Wi bi ñu defee seen euh, sortie euh, génnee ay argument yu nga xamante ni moom la ñu teg ci table bi leen dégg ñu ne euh, dafa am ay irrégularités yu nga xamante ni moom moo nekk ci règlement intérieur de l'Assemblée nationale maintenant pourquoi attendre à ce moment justement pour vraiment génne li nga xamante ni moo di irrégularité yi sachant que Amadou Ba ci irrégularité yooyu noonu ci la defee li nga xamante ni moo di sa déclaration de politique générale et ci loolu la ci ñoom ci seen jëmmu bopp je peux citer Birame Souley ci la dugaloon li nga xamante ni moo di motion de censure bi en fait euh... euh la moo ko la la moo ko waral. moo bàyyi ba léegi. di wax manquement yi ci am. Euh, loolu laa lay wax ne la la moo ko waral moom mooy. Euh, constitution par exemple Amadou Ba bi ñu dindee poste premier ministre Faye Amadou Ba en tout cas règlement euh, euh, comment dire règlement intérieur bi bu ñu bu ñu supprimer poste premier ministre. Mm-hmm. c'était en 2019. 2021 mm-hmm. ci la ñu instauré poste premier ministre boobu légalement quoi bien que Amadou Ba 2022 après lañ ko lañ lañ ko tàbb loolu tax na ba nga xamante Euh, wax nga ko sànq ñu profito après bi ñu tabee Amadou Ba ñu def ay euh, mécanismes yoo xam ne de motion de censure ak yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen. Mhm. mais première bi lu ma la expliquer première bi moom mooy c'est un euh, c'est un problème de timing parce que habituellement comme premier ministre yëpp daanaka trois mois lañ doon am pour def déclaration politique général mhm. bii nii trois mois yi mënatuñ ko respecter parce que cinq juillet bi déclaration politique il faut nga bind assemblée dafa y a tous les procédures ouais. beaucoup procédures pour que euh, nga mën ko def donc délai boobu mënatuñ ko respecter mhm. xam nañ ne Euh, plus tard lañ koy def de toute façon bu fekkee dañ koy def plus tard lañ koy def mënatul nekk si jamono ji donc fale une sorti boo xamante ne dina un peu pallier ne euh, déclaration politique générale bi mënatul nekk loolu moo tax sortie bii nii sortie bii nii bi ni am ba pare beneen bi moom mooy peut-être légi peut-être j'en suis pas sûr mais peut-être légitimer le fait que euh, le fait que ñu euh, bon assemblée nationale nu nga xamante ne noonu la waroon a doxee euh, ñu di ñuy wax dissoudre assemblée nationale non pas dissoudre mhm. parce que mën nañu wax ne euh, à partir de à partir du 30 juin parce que si la session bi di di tëj 30 juin bon je pense tey le 28 29 30 ginnaaw suba la session bi di tëj session unique bi ordinaire après beneen session beneen session octobre lay tijjiwaat. Mhm. octobre session bu mën nañ joxtu ne euh, li nga xamante ne moom moo di euh, motion de censure mun nañ ko mun nañ ko dugal parce que ñu rappeler règlement intérieur assemblée nationale dafa wax ne mënoo déposer motion de euh, fois mm-hmm. donc beneen session mën nañ wax octobre lañ ko mën a lañ ko mën a def motion de censure octobre lañ ko mën a def te bu boobaa dina tax en fait lu ma la bëgg wax moom mooy ñoom dañuy mën nañu wax ne mun nañ dañuy gagner temps pour voilà se préparer éventuellement pour pouvoir dissoudre l'Assemblée parce que pour nga dissoudre Assemblée nationale faut attendre euh, jusqu'à jusqu'à décembre parce que décembre la ñu installé woon député décembre 2022 la ñu installé woon euh, quatorzième législature donc faut deux ans pour euh, dissoudre li nga xam moo assemblée nationale bi donc peut-être pour gagner du temps loolu moo tax ñu génn pour mhm. un peu bon ak werante bi ndax ndax dina ko def wala du ko def mais daal xam naa ne lépp lii yëpp c'est à à eux parce que comme ni ma la ko waxee tout à l'heure tous les premiers ministres on l'ont toujours fait ont mhm. toujours fait cette déclaration politique générale et puis boo mënoo dérober aussi si règlement boo xamante ni euh, au contenu de la constitution euh, moom moo inférieur li nga xam ne moom mooy moom mooy charte mère moom moo di constitution alors la dernière question mooy li ñëpp di laajte mhm. est-ce que réellement Ousmane Sonko pare na pour jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoo di député yi ci deux heures de temps yi nga xamante ni euh, wax na ko taxaw jàkkaarloo ak ñoom dérouler li nga xamante ni moo di sa feuille de route teg programme am wax ñu fi mu jëm euh, ndax nag ci loolu noonu euh, ci député yi lay dépendre su leen convaincre ñu ànd ak moom ci loolu su leen convaincre article 86 may na leen ñu dugal motion de censure tas gouvernement bi est-ce que du loolu la ragal justement sachant que ñoom aussi comme ni nga ko waxee ils sont minoritaires à l'Assemblée Euh, bon ndax ndax ndax pare na bon lu ma lu ma lay wax foofu rek moom mooy pour nga pare jaaxaaro député aussi tamit bon da xam fu ngay jëm. Hmm? Mm-hmm. bon mooy nga am kayit goo xamante ne bon moom mooy euh, lii laay def lii laay def parce que loolu après tout loolu mooy déclaration protection mais loolu soo ko xam soo ko amulee wala soo ko xamulee tamit ça pose ça pose problème est-ce que am na ko je m'interroge euh, beneen bi moom mooy. yaa ne boobu est-ce que ragal et tout bon boo xamee boo xamee Ousmane Sonko politiquement ak nu mu nekkoon biir assemblée nationale boo tu tu tu te dis pas que mbiru affaire ragal la. Mm-hmm. Hmm? boo xoolee objectivement doone dafa ragal franchement c'est un homme politique courageux quoi qu'on puisse quoi qu'on puisse dire maintenant lu nga xamante ni moom moo nekk ko ci mbir mi moom moo di euh, temps politique bi nii nii nii moment politique bi c'est pas profitable à lui. Okay. parce que ya a beaucoup de polémiques yoo xamante ni jug na fi. Mhm. Euh, que moom boo dafa bëgg a comme nii moom mooy président euh, yaa ngi gis coowu Mélenchon bi tamit lu mu jur. Euh, yaa ngi gis tamit grand théâtre moom mooy yi nga xamante ni wax na ko ba ba ko yoo xamante ni peut-être ay polémiques yoo xam ne dafa këppuwaat si kawam. yooyu yëpp mën nga wax ni daal ñuy wax Ousmane Sonko andil fii bul yóbbu fii yooyu yëpp boo ko xoolee. mun euh, nañ mën nañ mën nañu wax ne député ñu ngi koy xaar de pied ferme mm. ci lu nga xamante ne moom moo di déclaration politique générale loolu soo ko résumé bon di nga wax ne bon peut-être amul envie mm-hmm. euh, mais pas ragal mais lu ma koy lu ma koy jàppee mooy amul envie pour l'instant ñëw li nga xamante ne moom mooy biir assemblée nationale parce que tamit neexul Euh, yow nga daan attaque waate nga toog nii amoo droit tontu enfin bien que am nga après dinga nga tontu mais nga toog nii rek député député taxaw di la wax lu la di ko wax di la wax tamit lu la neex bon euh, sa orgueil euh, daanaka bon du la ko du la ko may mais bu fekkee ni bo en résumé rek moom moo di booy ñaari ñaari aspect yu ma la wax mu ngi ci benn bi c'est purement moom mooy ba moom mooy le temps mm-hmm. nii nii ñu ñuy dundee ni ah bon c'est pas profitable à lui beneen bi moom mooy bon peut-être c'est pour Euh, voilà c'est pour gagner du temps. merci beaucoup alors ma nga conclure bu ko defee ñu tëj dossier bi. bon lu lu may lu ma si wax rek moom mooy déclaration politique générale lu lu yoon lu yoon lu yoon wax la bien que dañu wax ne ko loolu c'est vrai nekkul si lu nga xam ne moo di règlement intérieur bi dañu faat et puis moi je me ne mooy député yi ñoom est-ce que ils sont lucides parfois parce que mënuloo cheminer ak règlement intérieur bu ko ba bien que am na député yoo xam ne à l'époque décrire nañ ko de mais bu ñu ko poste premier ministre ñu def tous les attributs yu nga xamante ni moo ànd ak poste premier ministre ñu réinstaurer ko loolu moom mooy yoon mais pour man amateurisme amateurisme munul mhm. passé ab loi boo xamante ni dafa ànd ak euh, benn poste euh, ñu poste boobu légalement muy fonctionner et puis loi yi euh, mu nekk benn vide juridique boo xamante ne moom moo causé puis ça peut causer benn crise institutionnelle boo xamante ne maara détaillé tey jii par exemple député Benno Bokk Yaakaar suñu waxoon ne du dem du ñu dem biir du ñu dem assemblée nationale par exemple ah député bi président assemblée nationale ci euh, fi nga président assemblée nationale moom Benno Bokk Yaakaar la bokk. Mhm. président assemblée nationale mën na wax ne ak député yi ñun dañu dem assemblée nationale mais kan mooy présider kan mooy présider affaire yi kenn ñoom ñëpp ñu génn du kenn du. te fi ñoom ñooy ñoom ñooy fixé seen li nga xamante ne moom mooy seen calendrier. donc loolu euh, mën na nekk benn crise institutionnelle boo xamante ne daal bon maa détaillé bon pour résoudre lépp il faut que nit yi ñu bàyyi affaire politique politicienne. voilà jëm jëm jëm si li nga xamante ni moom moo di respecter le textes et les surtout loo xamante ne lu am solo la moom mooy c'est un rendez-vous républicain déclaration politique générale c'est un rendez-vous républicain même au-delà des textes ñu bañ a constitution règlement intérieur c'est un rendez-vous républicain mhm. donc bépp premier ministre boo xamante ne bu ñëw da nga ko même su fekkee sax mënuñu wax premier ministre yëpp respecté nañ délai yi mais ñu def ko en temps et en heure ba nga xamante ne euh, bu député yi dinañ bëgg a laaj euh, lépp lu ñu lu ñu laaj wax tamit lépp lu nga xamante ne euh, mhm. moom la ñu moom la ñu moom la ñu bëgg a mais bon pour man euh, voilà benn benn boulette boo xamante ni dafa tombé ci euh, euh, ci gouvernement Ousmane Sonko la et puis c'était c'était évitable bu fekkoon député yi nga xam ne ñoo député Yewwi Askan Wi génn ñu wax ne boo on a supprimé ça on a supprimé ça on a supprimé ça ce qui n'est pas vrai y quelque chose qui est vrai question de confiance ak déclaration politique générale mais motion euh, bi amul benn soppite loolu amateurisme la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy député yi nekk assemblée nationale. merci beaucoup Pape Malick ñu jaajëfal bu baax a baax dossier bi am na solo dans la mesure où l' actualité de la semaine est euh, vraiment fournie euh, par cette déclaration de politique générale mbokk yi ma proposé leen ngeen seetaan benn clip et juste après ñu dalal sunu ganu tey